taxaa itam loola la mën a séq ak ñoom léegi nag bi nga xamee ne soxna si sëriñ bi digaloon na ko loolu moom Aïda Diallo leeraloon ko ne ko na nga ci ginnaaw Saalihu Cuun mbooloo mi yépp nekk benn ñuy ànd di siyaare si seen jëwriñ moom li ñu ma leeral mooy ndigal yooyu ñu ko jox yépp bu jógee ci sëriñ mun Muntaxa jógee ci sëriñ Seexum sëñ Saalihu sëriñ Saalihu Cuun moom ndigal lañ ko jox jëfe na ko te nangu na ko nangu naa we ndigal nangu naa sosi ci kër gi waaye kii di Aïda jàlloo ndigal li nga xam ne moom la ko joxoon daaw ci ndigalul sëriñ Mouhamadoul Mountakha ndigal loolee ba fii ñu toll tey yëguñ lum ca jëfe sëriñ seexum sëriñ saalihu itam la mu ko digaloon yëgul lenn lum ca jëfe kon nag dafay jaadu ñu leeral euh, adduna bi yépp leeral fépp fu taaliba murit nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu xam lan mooy position kilifa diine yi jiite yoon wi ngang ko loola mooy ki ñu mën a séqal yoon wi mën a séq ak moom digal ak tere mooy ki nangoo doon ab taalibe nangoo jëfandikoo digle ak tere ñu di leen xamal ne nag kon ñoom ñaar ñoo séq kër sëñ Béthio te ndigal li mooy na sëriñ Saalihu ci jiitu njaboot gi topp ci ñu ànd ñëw liggéeyal sëriñ Touba loolu nag kon ñu xamal leen ne ndigal li ñu joxoon Aïda Diallo moom jëfewu ko kon sëriñ Saalihu Thioune moom lañu yëg ne lañ ko digaloon mi ngi ci biir ndigal loolu ndigal nag saa yu génne ci am murit dara desatu ci ndax ko bokk ci yoon wi yaara la ci bàyyi ñu digal la nga def ñu teral a nga bàyyi kon nag képp koo xam ne da ngaa xemmeem alalam ak koo mën a doon muy nag ya muy dajale wala xaalis ba mu wóor la ne li la sëriñ tuubaa Touba la ci boppam xeeb nga ko wala nga xiif xiif buy tax nga dem di ko fa sàkku na la wóor ne alal joo xam ne ji borom lu mu bari bari bari wéewul ndigalul sëriñ Touba bu nekkee ci biir yoonu murit na leen wóor ne alal joojee sëriñ Touba seexlu na ko képp koo xam ne nag xeeb nga li la sëriñ bi defal ba nga di ko yootu wala bu ñu la ko yëtee nga làq ci sa wanag na la wóor ne foofee sëriñ Touba jaar waroo nga ak moom ak jublu loolu na leer ci kanam ñépp kon nag lii bokk na ci li ñu bëggoon a tënk ñaareelu point bi mooy kër ga sëriñ Béthio Thioune am ngaabu kër googa mënuñu ne màggalu Touba ay gan du fa dal ndax kër yépp ba ci mbedd yi ay gan dañu fay dal waaye nañu xam ne tere nañ ko lépp lu xeetu ci yëngu ci ngaabu boobu ndax mook Touba ñoo yem àtte ak li wër kër ga wala ñu defa baas wala ñu defa def yenn activité yoo xam ne jotoon nañ ko fa yëngal daaw ren ji interdit nañ leen ko ñu bañ ko faa def ak bépp yëngu-yëngu ak benn manifestation bu ñu fa war a def tere nañ leen ko ci ndigalul kilifa yépp te it benn base wala buy rassembler mbooloo tere nañ leen ko fa ku nekk ci biir këram nag loolu dañ koy jàppe ne gan gu doxoon ba yem ca kër ga war faa dugg seelu fa ab taw wala ngelaw loolu lañ koy jàppee màggal gi soxluwuñ ci lu dul jàng alquran ak xasida xasida yi xaadimu rasul yi nga xam ne dara génn ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la sëriñ bi dégle